auzu billaahi bismillaahi teenoo jóg bakk Mustafa billaahi bismillaahi teenoo bakk Mustafa man Bamba Mbàkke mi setoo ci yow maa ko way ndax amuñu kudul Mustafa Sëriñ Moodu Buso Jeng Serigne Modou Bousso Dieng ki ñaan rek yàlla yokk leeram ku baax bari yërmande ak taalibi ku gëm sëñ Touba boolewul sëñ Touba ak dara am yërmande lool mën a yare yàlla nañu ko yàlla fayal wax ginnaaw ñi fi toogoon ñëpp li wax nañu lépp yàlla yàlla fayal nu ko rek te yàlla may nu fan gudd bàyyi nu fi ak njaboot geeg mbooloo mu jullit sant di ko sant sant ko dale ci sëñ Muntaxa xalif ci sëriñ jiili mi jiite ak sëñ Abo kër sëñ ñoo ngi sant ñëpp jébbal lépp suñu bopp ak liggéey suñu lépp dal na yàlla fayal mu Cheikh Moustapha Mbacke Fallou ma ko lim boo ko limee fi laay yenn waaw li ma ca xam bu ko limee fi laay yenn yàlla baaxee woon na ko ku am ñaan la lu mas a ñaan rek yàlla def ko loolu moom seen réew mi ak àdduna xam na ko ñi mu daan dem biir bitim réew xam nañ ko bu baax a baax yal nañ ko yàlla fayal rek li nga xam ne moom mu jëkke daal mooy ak taalibe taalibe daal bu jëkkee ci sa xol ak woyof xol bu rafet loo yéene sa bopp nga yéene ko ñëpp di wéy ci ndigal buñ la nee teree nga bàyyi buñ la digalee nga def ko defee rek yàlla mën na laa defa sutura daal amin amin amin amin amin yal na yàlla baax seeni borom kër jubale leen ak ñoom leen ci njabootu barke barke si amul safa allahuma amin allahuma amin allahuma amin wallaay ndey kontaan naa baax baax kontaan naa baax borom xayra moo yéeme woon daan xees ba mel ni sërif yiisa ñu lay baraw kaab ak lamboo woon na taar ba yuusufa yoroon taamoon na bilaal ga bilaayi ma bëgg Mustapha jëfi sëriñ moo du ci duniyaa ker la ko tere feeñ yal na yàlla yokk leeri Mustapha yëg-yëg bi ma am day kawe na sama njort ndax sëñ Modou moo ñu defal lépp ñun luñ xam moo ñu ko ci moom lañu nekk ba màgg ba toll ni ñu toll fii ba mu doon ñetti kër laa fi ñëw bala maa dem Dakar 77 laa fi doog a ñibbi jóge ñibbi Dakar waaye lépp sëñ Modou moo ñu ko defal moo tax man mënumaa wax ci moom dara ndax li ma damaa amul lu ma defalul lu ma defalul awma ko am ah, feebar sax bu ma ko masaan def mu tëma fii laay ñëw ci moom lu ma fu mës a indi nag bu ma ñaanalee rek mu saafara wu loolu daal laa mën a wax ci moom. jërëjëf soxna si ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen taxawaay ci teew bi ngeen teew fi ci borom kër gi borom kër gi moom lépp lépp ñëpp la woon kenn koo ne suñ Modou eh, defalul rek defal na la boo ko yëgee ci joo ko yëgul borom xaas la woon borom jàmm la woon borom yëgal woon doomu aadama yëpp laa mën jàmmit moom amoon frontière ci moom. lépp loo xamante ni diina laaj na ko rek moom bu ko yëgee da nga def la mu ay jàkka yu bare bare eh, teewoon naa yegg moo ko àggali ak ay jumaa yu bare bare bari di niw di dimbali néew ji doole ji di dimbali it ñi nga xamante ne ñoo nekk ci àll bi nekk ci nekk ci tukki nekk ci jafe-jafe kon kooku moom bu amee bésam moom ñëpp a ci war a jàpp murit tijaan xaadir laayeen même ku dul muy ku dul juri sa war nga jàpp ndax eh, mbindeef yëpp la doon dimbal kooku daal moom wax ci xam naa du mën a sori ndax itte yi bëri na te it liñ ci xam moom bariwul noonu ndax borom biir la woon mu moo xamante ne dafa lëm ci biir daal jërëjëf. ca ba lay tàmbalee. Cheikh Fallou Mbacké. waaw lay tàmbalee. fii di ko borom di sanc kenn jàpp ne dina demee nii te yàlla nga laaj Fallou kii ñu nekk nañ ci daal juróom-ñaari at moo ñu jiite Cheikh Cheikh Modou Boussa Diagne Samb yebal ma wàccee. maa ngi tudd doomi sëñ Mbacke Saloum tudd maam Thierno Mbacke maa nga ndindi lu ma am lu ma xam fii laa ko amee lu ma am lu ma xam fii laa ma lu ma xam fii laa ko amee moo sigal sëñ Touba ci bisu safar bi ba ñëpp xam ne safar ñëw na di digal sëñ Touba sëñ Mourou Bousso moo sigal rajab ba ñëpp xam na rajab a ngi nii. sama borom kër ci sëñ Fallou jébbalu woon am la mu dem ci sëñ Modou bu sa jam sëñ Modou dem ñu ngi ci sëñ Jiili sama gon yëpp te ñu ngi ci waa kër sëñ Jiili ji kon sëñ Modou li ma ci xam bari na xanaa di ñaan nag sëñ Jiili ñu fi bàyyi rek yal na yàlla guddal fanam yal na fi yàlla yal na noonu koy dund bañ ci ko weer a ko weer waaw sant naa nag kon nag gërëm ko ndax suñu taxawaay bi taxawaay bi suñu suñu waa suñu borom kër yi bi ñu demee taxawu na suñu gone yi ni mu taxaw rek noonu ñaan yal na ko sëñ Fallou teeru fii ah ba ñu dund ba bañ di ko weer ak leen man Fatou Diop moom laay ñaan. yi maa bëgg Moustapha jëfi sëriñ moo du ci duniyaa ker la sul du ko tere feeñ yal na yàlla yokk leeri Moustapha sañ-sañ ba daa yéeme woon sëriñ moo du sañ-sañ ba daa yéeme woon ba daa yéeme woon ba daawul nege benn lu wax borom bi daal koy def ngir Moustapha col gu riis te yees Boniface ak marocain duñ ko rey ci kudul Moustapha ree ju neex jaak jib ju taaru ja talum wax du deñ waat naa ni waliyu kaamil nga yow Moustapha addi si Moustapha Falilu